mbokk yi lii ngeen gis daw na yaram lool daw na yaram daw na yaram wax dëgg yàlla waaye day wane ne liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek moo wóor waaye dafay wane ne lépp looy def rek na nga ko def ngir yàlla suñu borom mooy tax ëllëg lu mel nii sëriñ Atou Diagne am tey nga mën koo am ndax ku tedd ki Sëriñ Tuubaa Sëriñ Murta Sëriñ Muntaxa Xaadim Rasuul déplacé wu daal ne mbir mi sama mbir la xajalu ma ci kenn damay jël lépp ah wane ne moom kat aatu mii comme daan liggéeyal di sëñ Tuubaa mooy suñ Muntaxaa mi loolu rek la wane mu wane nag dañoo wax ne ci suñu réew yi ñu wër wala yeneen yi kenn koo xam ne ci soldaar yi nga wala kenn koo xam ne liggéeyal nga réew mi dara tey bu faatoo li ñu jëkk a def mooy état bi da koy rendre ko fi defal indi la aéroport teg la ci ci bi kenn ku ne wax ci yow lu mu xam ci yow lu gën a doy waar nag loolee la sëñ Muntaxaa Mbàkke Xaadimu Rasuul def tey ndax nag day wane ne ah, suñu aatu jaan liggéeyal la Sëriñ Tuubaa liggéey boobu ñu ko liggéey sëñ Tuubaa nag kan moo ko war a fay kan moo ko war a rendre kan moo war a jël suñ mun taxaat sëñ Aatu Jaañ tey wan ko wan mbooloo mi ne ah kim doon liggéey tey moo ko teg fii mooy bu ngeen gisee image yi ngeen xam ne te dañoo wax ne nit ku dëddu àdduna am na mbooloo moo xam ne buñ la gungee rek yàlla suñu borom dana def ci ak texe ndax li koy waral mooy du ñàkk ci biir mbooloo moomu kenn koo xam ne tey yàlla dana ko rus ba def ci ak texe te ko gis ñi dugg tey sëtu Serigne Touba yi am na ñoo xam ne man wax nañ ma personne ne ma kii de ma ko sax wax dëgg yàlla waaye nag xam naa liggéey ko def Serigne Touba loolu loolu moo tax ma déplacé wu tey jii ñëw kon nag wan nañ ne suñu mën taxaa rendre na ko hommage gungal ko boppam taxawal ko boppam ah loolu da koy maye mooy liggéeyal Serigne Touba di ci soñu murid yëpp rek murid yi nga xam ne yéen yéen ci doy yéen yéen woon ci ginnaaw di xool ci ginnaaw aatu ak ci ginnaaw yeneen daayira ginnaaw ci yeneen daayira góorgóor rek mooy maye lii ak am fit ak fulla ak fayda bu ngeen xoolee image yi ngeen gis depuis démb ba léegi sëñ aatu nga xam ne sëñ aatu boo xoolee 1976 sëñ Abdou Lahad di ñëw Ndakaaru mu sol mu yore takk takk der gi yore jaasi ji ak yu waar yu gën a garaaw yooyu aatu sëriñ aatu Jaañ bu ngeen ko yàggee dégg li mu def ci réew mi kenn xamul nu toll mu def ci yoonu murid xamul nu mu toll moo tax sëriñ Muntaxa Mbàkke tey lii mu ko defal tey jomb ko jombul sëriñ aatu waaye nag day wane ne fii rek lañ wa la ñu gis waaye nag ba ëllëg nañ gën a góorgóorlu ci liggéey sëñ tubaa te xam ne liggéey sëñ rek mooy mbir mi